Aïda Sow Diawara ñoo ngi lay jaawale yenn saay ak Ellen Johnson Sirleaf waaw loolu de am na euh, dañ ma koy wax tout le temps ba bi président di prêter serment may wàcc kaar bi kaaru député yi parce que dañ jëloon suñu kaar fële à l'assemblée dem may wàcc benn journaliste bi nga naan welcome welcome welcome may reetaan euh, dem naa fi Cap 22 au Maroc may dox rek ba ñun ñaar ñëpp ñu daje dañu daje rek instinctivement ñu lëngal yow ak kan man a moom Ellen Johnson boobu ñu dajee Maroc mais instinctivement dañu euh, jàppante ba ay garde corps am daw di xoolal la parce que xam naa moom it ñàkkul ñu waxoon ko ne ko dañu nuroo euh, mais man je l'avais dans ma dama jékki gis ko sama kanam ma ne ma foog ne sax damay kii mais moom itamit mu xool ma ñu dal di ree ñun ñaar ñëpp dal di lëngante donc euh, ba démb rek démb rek ñu ngi may wax naan ma eh, yow xam nga ki nga nuroo ma ne xam naa ko bu leen ko wax donc loolu yàlla moo ko def